armeelu Mbusoobe comme ni ko sëñ bi waxee foofu moo nekkoon kër sëñ Mbusoobe ñu wax ne kon bi mu wàccee liggéey lañ ko lañ ko lañ ko denc ci penk jàkkaam mm, kon loolu moo ko moo moo ko mujj comme moom nit ku yàlla barkeel la moo tax bañ ko fa dencee nag ñu tàmbali di fa def ay ay nit euh, bis maam Morom Saam wàccee liggéey la Sëriñ Tuubaa wax ne sëñ Mbusoobe mi ngi koy laaj wétal daal di joxe ndigal sëñ Mbàkke Buso moom moom la jox ndigal ne ko boobu moom ma nga nekk sëñ Tuubaa nekk njaareem comme ni nga ko waxee nag résidence surveillée waaye moom kenn surveillé ko ko doon yàlla ndax assurément al abraar yi yooyu nga xam ne moom la wax ñoom dañoo jàpp ne dañ koy surveillé waaye moom moom leen moom moom moom moom leen doon surveillé kon su ko defee moo taxoon mu jox taalibam boobu sëñ Mbàkke Buso ndigalu mu ñëw taxawal ko maam borom saam waaye wax ko ne boo ko taxawal nañ ko yóbbu ci sëñ Buso bi ngir mu wéttal ko ndax mi ngi may euh, laaj waxoon na ci ay wax yu am solo tamit diggante sëñ Bousso bi ak Mame Borom Sam wax ne ndax ba mu ñëw ba mu ba mu man dafa maanaam seen diggante ci boppam dafa wax ne na na toll nangam bañ wax ne nag seen diggante boobu de yàlla def na fa yërmande ba ñaari malaaka yi nga xam ne sax danañ laaj nit ci ci ci bàmmeel muy Munkar ak Nakiir xamuñ foofa kon loolu tamit ci barab boobu euh, ñaar ñooñu ñoo fa gën a fés. waaye lit mi nga xam ne sëñ Tuubaa tamit euh, ku ku yéeme la mooy am na kenn ci leeram goo xam ne ne mooy Mouhamadul Xaadir ab Mouhamadou Abdoul Xaadir foofu lañ ko denc ci sëñ bu sobe xam ne leeru sëñ Tuubaa la waaye sëñ Tuubaa ci boppam ba mu nekkee njaareem nit daana daana daana wàcc liggéey njaareem mu ne nañ ma ko yóbbul Mbàkke am na fi ñoo xam ne ni ay naar lañ ak ñoo xam ne nii ñu ñu xam la ci yoon wi ñoo xam ne ni njaareem lañ lañ wàcc liggéey waaye dañ leen a yanu ci ndigal sëriñ Tuubaa andi leen bu mu kon loolu tamit maanaam euh, barab Mousso bi noonu noonu la toll ci yoon wi sëñ Cheikhou sëñ Cheikhou mu nga xam ne mooy taaw taawu sëñ Mousso bi foofu la nekk mi nga xam ne sama waajur tamit moom fa la fa la nekk soxna jiwaritu ku ñuy wax jiwaritu Bousso nga xam ne doomu sëñ Mbàkke Bousso la moom tamit foofu lañ ko denc ñoo ñëpp ay kàngam la yoo xam ne nii wax dëgg yàlla euh, ci ci barab yooyu lañ nekk kon daal mu mel ne barab yooyu moom lu am solo la comme ni nga ko waxee rek sëñ Bousso bi mooy mooy cosaanu barab la waaye ba mu fa nekkee euh, bari na ñu ñoo xam ne ni ci ndigal sëñ Tuubaa lañ leen fa andee ka ci gën a fës comme ni ma la mooy maam borom saam xam ne ni mook sëñ Tuubaa ñu bokkoon lépp mu jaay lépp nag euh, mbokk googu jox sëñ Tuubaa boppam mu joxe ndigal nañ ko yóbbu foofa euh, am na kuy nekk li ci sëriñ si ne mas naa ñëw ziyaare mooy sëñ Abdou borom dër bi mas naa ñëw ziyaare maam mel daa ziyaare maam borom saam ba ñëw bay bay bay wàññeeku neen daa ñëw ba fi wetu croix rouge sëñ bu soobee gis ko gis ko ci baat ne ko mel ne ko ko ko xam ne ndax dafa jow ñëw ba foofu rek mu ne mu ne mu ne mu ne chauffeur bi dëppal ñemee ba mu ba mu ziyaare waat sëñ bu soobee ba ma ñëwee ba toll foofu la sëñ sëñ bu soobee wax ne ma kat lu tax agsi woo ci man kon nga xam ne ñoom ñaar daanaka ko dem ci bii dem ci fële rek say say aaju faju kon loolu tamit ah, ah, ah, am na ci ci barab booba muy barab yoo xam ne daal yu am jeexital la yoo xam ne nii ku ñu baree bëri xëy na xamuñ ko waaye waa Mboussobé tamit sëñ Tuubaa moom fi mu leen féetale woon day mel ne ansaar la la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne le lu jamono yàqu-yàqu yéen yéen nekk leen ci li ma nekk rek boo leen ma fekkee ci sama sama sama sama sama dex ga man yor àjjana rek da ngeen xam ne ànd ak man ma am solo kon sëñ Mboussobé tamit wala waa Mboussobé loolu la leen sëñ Tuubaa dénkoon sëñ bàkki Bousso nag fes si fes goo xam ne nii wax dëgg yàlla am cër bu rëy a rëy boo xam ne nii bu dee nat jumaa ji rek day na sëkk ab cër waaye taxaw gi nga xam ne moom la ko taxawul magam ju baax jooju sa sa sënc rek ci moom mu day ko ci sëkk waaye boppam mi nga xam ne moom mooy Serigne Touba moo dénkaane woon ne tamit bu fi jógee wax dëgg yàlla na ko sëñ Mbàkke Bousso taxawu te gis ngeen ne taxawu ba tamit ba nga koy taxaw maanaam wane na ca mat gu sëkk goo xam ne ni xam nañ kii rek moo ko mënoon ndax gis ngeen <laughs> dañuy wax ne ba bañ ko taxaw sax dem nañ ba daanaka bi biñ biñ biñ biñ biñ biñ tàmbalee liggéey bi ba ci biir dañoo nodd fajar waaye sëñ Mbàkke Bousso dafa wax ne ne lépp taxaw ñu dem julli ba noppi ñëw àggalewaat gis nga sago soosu mel ne ne sëñ Tuubaa moo ko ko moo ko moo ko ko roofoon ba bam ba loola xewee sa mu am sago ba toppatoo lépp mat lépp kon waa Mbuso bi tamit foofu lañu nekk rek di jéema a xeej uh, ndigal yooyu ak ak ak jeexital yooyu sant nañ leen bu baax a baax li sëñ Amaat waxoon na na sëkk xëy na lii dañ ci barkeelu rek wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.